yéen ñëpp ngeen dem aljana doxalal. waaw Seexul Xadiim dafa dugg diggante boobu. ne ko nubuwatuhu xablal baraaya. isa xadin jalat. waaw waaw lahu sabxu aynal jaddu. fi tiini mu ne ko nuurun darihatuhu. bahrun bariyaat sa isa. nuurun na Seydina Muhammad. ñu la waxee faatu bu buñ nee la indil ju gor wala ñu bett la ne na ne la xalaatal gor rek xalaatal Cheikhul Khadim nuuru dariyato buñ la waxee jàppal ci loxo gor indi jàppal ci leexul loxo Cheikhul Khadim yóbbu dari dariyato li mu am yëpp ci àdduna muñ moo ko ko may nuurun dariato sëñ am yëg nga ni alxames gi mu ñëwee ndakaaru tànku nday moo jam rab baxrul xariato Mamadou la fi ñëw mu ngi départ Ndar ba ndakaaru taxaw weeru koor mu euh, bëccëgu alxames gu mu woor ñu indi ko ci néeg boo xam ne jàpp na ne day ndogu waaye pour wax la ngor gi mu ngore ak séqoo ñaari tànkam tànku ndeyjoor bi la dugal rabb bi sar ba mu génn mu wax ak moom ni ko tànku ndeyjoor bi de bu dëggee te tànku càmmoñ bi dëggul kon tànku ndeyjoor bi dong koy dëgg xaaral ma delloo tànku càmmoñ bi itam li tànku ndeyjoor bi yëg ci mettit na ko tànku càmmoñ bi yëg li tànku nday joor bi liggéeyal yonent bi na ko tànku càmmoñ bi liggéeyal yonent bi dëgg ndeyjoor bi deret ji sar mu dëgg càmmoñ bi deret ji sar mu siggi jam-jam yi wër ko mu jàkkaarloo way juróom mu jigéen mu ne ko lan la la rasulaay jaral nuru dariato déggoo ma de tànku ndeyjoor nga dëgg deret deret sotti nga xam ne deret sotti na xoolal ci gor nga ni tànku joor bi de segam ñam na faw tànku càmmoñ bi ñam cheikhul xadim jëlaat tànku càmmoñ bi ndax xam na ne ràbba ngi ci kanam mu bësati ba mu sar mu siggi way juróom mu jigéen feeñu ko ni ko lan la la yonent bi jaral mu ni ko dam mii dam mii xadim nee na dam mii waaye maa ngi laaj ñiy seetaan ku ci bëgg seexul xadim sëriñ tuuba nee na maa ngi ñaan ku sa yokku kër yal na la Cheikhul Khadim fay Sëriñ Bamba nee na dammi lii mu daj fii ci Ndakaaru Masaalikul Jinaan fay na ko Sëriñ Bamba nee na dammi la mu daj ca njaareem jumaay njaareem fay na ko Cheikhul Khadim nee dammi la mu daj wiri wiri ak maa yomba jumaay Tuuba fay na ko ay sunu waaj nee na dammi na fi yëg nga ni Cheikhul Khadim tukki na ba ñibbisi mës ta gis xar kanamu tubaab. Serigne Bamba nee na dami. li tubaab yi bari bari Momadou musul xàmmee seen kanam yi. ay sunu waaja nee na dami. bëtam mës ta daw ba jàkkaarloog benn tubaab. Serigne Touba nee na ñaam naan lu mu ngelaw ngelaw day sëgg di bind. Serigne Touba nee na dami. tubaab yi dañu ko daan xool di yéemu ci moom. Serigne Touba nee na dami. mu nekk ci plein bi ànd ak ñoom ci géej gi. Serigne Touba nee na dami. juróom-ñaari at nga nekk wiri wiri. Serigne Touba nee na tegoo cin tegaluñ la cin mi. Sëñ Tuuba nee na dem mi. jóge wiri wiri dem yomba. ay sunu waaja nee na dem mi. wéet ta foofa. Cheikhul Khadim nee na weeru koor yaa koy wóoral yow sa waaja nee na dem mi. at yaa ngay wóor. mu julli jotee yoroo moon tur sunu jàmbaar te nee na tammi doo xam ban heure moo jot bàyyi sëriñ Saaliw nee na tammi te mu julli jotee sëñ Bamba julli bàyyi sëriñ Saaliw nee na jotee sëñ Bamba julli bàyyi Cheikh Abdou Khader nee na tammi te booba moon amul bàyyi Cheikh Abdou Laat nee na tammi moo juróom ñaari weeru koor bàyyi sëñ Modou Moustapha nee na tammi sëñ Bamba di woor ca wiri wiri bàyyi Cheikh Abdou Laat nee na tammi juróom ñaari weeru koor bàyyi sëriñ Fallu nee na tammi ngay ci dëkk boo xamul climat bi maa maami Cheikh Abdul Xafoor nee na dammi. juróom ñaareet nga war a ñibbisi. baayi Cheikh Abdou Xaadir nee na dammi. malaaka yi dar la di la kañ. dammi. jinne yi dar la di la kañ. dammi. waa Ndakaaru di la xaar. dammi. nga ñëw ba pooru Ndakaaru. dammi. ñu wàcc la ci escalier yi. dammi. nga yem ci maam Thierno. Cheikhul Xadim nee na dammi. yem ci maam Cheikh Ibrahima Fall. Cheikhul Xadim nee na dammi. ñuy xaar ci yow Serigne Thiès. sëñ Bamba nee na dammi. sëñ Bamba di ko xool. dammi Cheikh Ibra di ko xool dammi muy xool Mame Thierno na ñëpp def nañu màggal Serigne Touba Mame Thierno di ko xool am sa waaja nee na dammi di xaar Serigne ca yonent bi wàcce ñaari tànk yi ñu ni ko lan nga indi mu ni ijaal rujuu'i ilaa qawmi saadatana wal takfina yawmal jam'i xalqi niirana isaa ma ñëw xam nga lu sëñ Bamba indi Serigne xoolal mu jaar tumuranke yi ko dal ñu ne ko lan nga indi sëriñ mu ne ijaal yàlla nang ma defal yow yàlla ruju ay sama dellu ilaa xaw mi ci sama ay nit saadatana muy sunu texe na fi fi mu jaar yëpp ak coono yi mu daj yëpp yàlla ni ko waxal loo bëgg ma defal lokk mu ne yàlla nag ma defal ruju ay sama xaw mi ci sama muy sunu ak texe wal takfina yowmal jamii xalqi niiraana sëriñ Bamba nee na yàlla maa ngi lay ñaan bu yowmal xiyaamee waxuma la murid de bu fekkente ni Sénégal ga ma bàyyeekoo benn jullit nar na faa dem safara yàlla na nga jël sama yiwi tukki bi remplacer ko ko mu demee ko aljana nga jël tukki bi saawal ko ba waaye mbaax googu ku ko baax sëriñ Bamba nee na man maay na madarul islam bi loolu ku ko baax saf leen ma jor leen ma dinaa lislaam bi sëf leen ma jóor ko jaar yam yaroone xutbu yaat la daaya te aatanul ko bi may laaj xoolal question bi may laaj Fatou Abdou boo xamee lu tax nga bëgg Cheikhul Khadim yaa moom ñaari junni ndeysaan sañaam gis nga yàlla li muy def ci univers bi la dugal cofeelu seexul xadim boo xamee lu tax nga bëggu ko rek da ngay can li mu muñ la ko yàlla fay xolal boo demee màggal Touba tey ñaata tubaab ngay gis ñeenu ay bool rasta naaj bi jàpp leen ñoom ñu doon wax ni dañuy dañuy sonal ku tedd ki kooku la yàlla tourné tey teral njabootam nga gis tubaab bu rasta yor boolu ceeb bokk ci benn daayira di waaxu di yóbbu ceeb te du yëg tàngoor wi moomu loolu xam mbaax jéggale yàlla nee na saa yoo jekkoo te doo baale yàlla nee na ma wàññi sa daraja damay wax ni Sénégal tollu na foo xamante ni boo nee moomoo sa itifor bi daa rafet sax mu bindal la plainte aysa xoolal fi réew mi toll boo nee sëñ am sa mbaxane mi daa jekk sax sëñ am xëy suba yóbbu plainte la xoolal léegi lii nen ne wax démb Sénégal dafa mel ni Ludo ku génn ñu jàpp la te li yonent bi am jéggale moo ko ko may li Cheikhul Khadim am jéggale moo ko moo moo ko ko may moomu personnalité dëggantaan mooy nga jàkkaarloo ku la tooñ ni ko yëg nga ni yaa ma tooñ baal naa la mun la maa la tooñ nga ni ko mbaa yëg nga ni yaa tooñ réew mi xam nañu ni yaa ma tooñ nga ni ko maa la tooñ mun la baal naa la yàlla nee na boo ko defee law anfaqta maa fil ardi jamian maa allafta bayna xulubihim walakin allaha allafa baynahum yàlla nee na boo baalee ba nit ki xam ni baal nga ko mm. maay jël cofeel mm. oriente nit ñëpp ñu bëgg la te duñu xam lu tax ñu bëgg la te loo wax ñu ni waaw. ki nga baal sax gàcce mën na koy rey foofu de. wala déet. yenn baal yi gàcce la de. waaye bu fekkente ni ñu la def nga defante. Mm. yàlla nee na may dindi cofeel ci nit ñi dootuñu la bëgg nit ñi di la wedd di la wedd di la mm. ngay dox foog ni nit ñaa ngi topp sa ginnaaw nga gis dootoo gis kenn. ay am.